kon defar nit nag tërbiye ko ci njëlbeenam doo doon lu mën woon a ñàkk mag ñi am na ñoo xam ni seeni kër lañ daa àndal seeni njaboot dañ daa àndal ak seeni soxna ñëw tërbiye wu si loolu moo indi woon sëriñ bi bërëb yim daa taxawal di bërëb bi tërbiye ku ne xam na ne sëñ bi dafa nekkoon yitteem waxtu wu ne muy nekk ci bërëb boo xam ni tërbiya la fay def ak jàngale bu daa nekk ci àll ba itam moo ko moom la daa bëgg ndax àll ci lañ mën a jihaad ak bakkan ci lañ mën a liggéeye lu lew ci lañ mën a defee tërbiya ruuxiya ci lañ mën a itam tàggate mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo murid yi ba génne ci ñoom mbooleem luy ak parparloo ak yi nga xam ne mooy teqale nit ñi moo tax sëriñ bi buñ seetloo ci njëlbeenam dafa fonkoon fu ko nit ñi fekk mu tuxoo fa dem feneen Mbàkke ba Mbàkke Kajoor xam nga la njëkk a jógee dem Mbàkke Bawol ginnaaw ba la fa jógee sañ ci Daru Salaam ginnaaw ba mu jóge fa sañ ci Touba Touba la jóge sañ ci fii bi muy ñëw fii Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne booba ña fa nekkoon ñenn ñi dañoo ami kër ami soxna tàmbalee ami doom njaboot gi ak jigéen ñi tàmbalee jaxasoog ñim daa yar te moom ñim daa yar bëggut ñu jaxasoog keneen ku may ñoom moo tax nee na mu tuxoo foofee ñëw fii ci Mbàkke Bari xam ngeen ni beru ngir rawale sa diine loolu ci lislaam la bokk suñ borom moo digle ci alxuraan ne fa firru ilallahi inni lakum minhu nadiru mubin na ngeen daw wuti yàlla daw wuti yàlla nag fépp foo xam ni day xajamal sab dox jëm ci yàlla jóge foofee daa war moom loolu moo tax mag ñi daa dem ci àll bi di dawa di rawale seen diine rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara wax ne inna allaha yuhibbu al abda altaqiya alganiya alxafiy yàlla dafa bëgg jaam boo xam ni dafay ragal yàlla doylu ba noppi nag nëbbu boppam du fés féslu sayidna abu saïd alxudri dafa wax ne benn bis dafa am waa ji ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko ayu naasi afdalu ya rasulallah kan moo gën ci nit ñi yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko muminun mujahidun bi nafsihi wa maalihi fi sabilillah ku gëm yàlla di jihaad ak bakkanam di jihaad ci bakkanam ak ci jëmmam ak ci alalam ci yoonu yàlla kooku moo gën ci nit ñi nee na waa ji laaj ko ku ca topp mu ne ko rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu waa joo xam ni dafa beru ci aw xur sori nit ñi di fa jaamu yàlla kookee de moom moo gënal yàlla ci mboolem jaam ñépp ku dul ki ma njëkk a wax loolu ak xadis yi mel ne moom yonente bi waxoon na ne yuusiku an yakuna xayru ma lil muslimi ganaman yatba'u biha sha'af al jibali wa mawaqi al qatri yafirru bi diinihi min al fitan des na tuuti nit ki lii gën ci moom mooy muy nekk ab sàmm boo xam ne nekk ca biir àll ba di fa sàmm ak juróom wéet fa nag di jaamu suñu borom di rawale diineem kon xadis yooyu ak wax yi ak aay yu mel noonu moo taxoon mag ñi daa fonk nekk ca àll ba di fa jaamu yàlla di fa yar ñiy àndal di fa fàggu lu lew di fa tërbiye itam taalibe yi buñ gisee mag yi murit yépp kenn ku ci ne am nga dëkk mën nañ cee jël misaal sëñ Cheikh Coro jooreel dëkk la boo xam ni moo ko sanc ak yeneen dëkk yeneen dëkk yu bare bare bare Cheikh Mouhamad Lamine Gueye Gueye Firdawsi moo sanc Firdawsi ak Daaru Firdawsi ak Kaylaan ak Jaylaan ak Touba Kan Firdawsi Almannaan ak Minnatul Ulya ak Busra ak feneen ak feneen sëñ Mbay Jaxate xojale xojal moo ko sanc moo yeesalaat itam xuru Mbàkke sëñ Maxtaar Bintaloo moo sanc ñomre ak surra man raa ak feneen ak feneen sëñ siréloo mën nañ wax lu mel ne sannoo si gis nañ moom mooy ki ko foofee mooy bërëbam bokk bu fekkee sanc ko itam am na fa bërëb boo xam ni moo fa nekkoon sëñ Balla Faali Jeng mën nañ ko tuddal dëkk yu bari yoo xam ni moo fa nekkoon fu mel ne Daaru Jeng ak colom ak kër xaar jéeri ak feneen ak feneen sëñ Mamoor Jaara masalan borom saam fu ne dégg na ko ak misra ak bustaan ak yeneen dëkk yu bare bare bare maam Cerno Ibrahima Fati ku ne dégg na daaru nooti ak koso ak ñeent fukki kilomètre am yooyu yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko maam Cheikh Anta gis nañ gaawaan ak càqami ak feneen ak feneen sëñ Balla Coro gis nañ kër Sërif ak Mbàkke Saalum ak Mbar ak feneen ak feneen sëñ Mandumbe noonu gis nañ kër Mëgéy ak Xabbaan ak Saam ak Dendey ak feneen ak feneen sëñ Mbàkke Buso noonu Gédé Buso ak Daarul Maraam Daarul Shakur Xadaayaqul Fadaayil ak yeneen ak yeneen kon mag ñi kenn ku ci ne sanc na ci dëkk buñ ko doon lim du jeex docteur Xaadim Sill def na gëstu boo xam ni wax na ne ñaar ñaari téeméeri dëkk ci ay dëkki murit yu ñu sanc yoo xam ni moom bu ci ne xam na turam gëstu na ba gis ne am sanc na ñaari téeméeri dëkk ñoom murit yi ci réew mi ginnaaw bi sax wax na ne gëstu na ba mu àgg ci ñeenti téeméeri dëkk yoo xam ne murit yee ko sanc kon dëkk yooyu ñu daa sanc dañ ko daa sanc ngir ne sëñ bi moo leen sóob ci ne mbooloo mi àndal dañ leen a war a tàggat ci tërbiye leen waaye ñu mën ñu mën a def jihaadu nafs waaye ñu mën a fàgg lu lew ñu mën a rawale seen diine itam foofe dëkk yi sëñ bi daal sanc itam buñ seetloo day wuute ak dëkk yu bare bari yuñ ma soon a xam sëñ bi fa muy tàmbalee mooy turu dëkk ba lay njëkk a tànn sëñ dëkk sëñ bi lépp day dellu ci yàlla daaru salaam daarul mannaan daarul quddus daarul minan daarul rahman daarul alim alxabir albuqaatu almubaraka tuuba daarul muti maanaam dëkk yooyu mooy ay dëkkam tuur dëkk bi lay tànn def ko muy kërug suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne tur wi day bari lu muy junju ak tegtal yu ci ne yëmu ci loolu dëkk bi niñ koy tërale jàkka mooy nekk ci dikk ba digg digg dëkk bi nga xam ne mooy bërëb bi ci gën a yaatu xam ngeen ne dëkki tubaab yi bu ngeen demee day am place publique boo xam ni fa la ñuy dajee nga xam ne ab jardin lay doon wala yu demee noonu dëkki suñ tubaab yi nag lim ràññi ko mooy jàkka mooy nekk ci digg dëkk bi mooy doon bërëb bi gën a yaatu nga xam ne mbedd yépp it ci lañ jëm yëmut ci loolu bërëb bi suñ tubaab dëkkam yi am na lu ñu ràññi ko te mooy boo duggee ci dëkk bi da ngay mën a xam daara ja fa ñuy jàngalee alxuraan mën a xam bërëb ba nga xam ne itam fa la ñuy jànge xam-xam ak li ñuy tuddee daaray kaamil dafay am ak bërëb boo xam ni ñiy tërbiyewu tërbiye ruuxiya ak di def xidma ñoo fay ne ak bërëb boo xam ni bërëbu dalal gan la loolu lépp boo seetloo ba léegi ni mi ngi ci dëkki murid yi buñ seetloo biir kër gi rek ni ko sëñ bi daa tërale dara am keesu jigéen ñi nga xam duñ jote góor ñi dara du bokk ak keesu sëriñ bi du bokk ak fi doo ngay tërbiye wu ne yi ne te jigéen ñi dañ daa col col gu yiw gu dëppoog ni ko yàlla subhanahu wa taala bëggee biir dëkk bi itam buñ seetloo mbooleem luñ fi sanc luñ fi def ci yi nga xam ne mënta ñàkk ci dëkk bi dañ koy delloo ci yàlla mën nañ ko jël misaal ci Touba sëñ ba ba fa nekkee ba ñu gasee teen ba ba mu bënn da ko tuddee aynu rahmati aynu rahmati la ko tuddee def ca ñaari xasida genn xasida ga mu tënke ko wa fajjarna larda uyunan wax ne jutta lana bilmaai wal arzaqi yaa xayra muti nafiin razaqi kon dëkki sëriñ bi loolu la ràññi ko muy dëkk yoo xam ni day am dañ koy organiser da am organisme bu fa am am tënk goo xam ni ak noce goo xam ni moo daa am ci dëkk bi ñenn ñu ne la ñuy def duñ bokk ak seen morom ñi jàng alxuraan nekk daaray kaamil ak ñi bind ak ñi nga xam ne dañuy jàng xam-xam ak ñi nga xam ne dañoo nekk di tërbiyewu di liggéey ca tool ya ngir dundal daara yi ñooñu ñëpp kenn du bokk ak sa morom ab liggéey ñu mu daa nekk dëkk yoo xam ne suñ bu masaane diir bu néew dootoo xàmmeeti kenn ku ne ci gan fan la fan la bokkoon xam ngeen ne société bi dafa am ay classe sociale yu jur li ñu tuddee yoo xam ni ay ay métier moo ko jur mooy ñii ëwa ñii ràbb ñii yat ñii def nangam ñii def nangam loolu dafa jur ay classe sociale yoo xam ni sëriñ bi moom bërëb yi mu sancoon daa fi tërbiye mag ñi boo fi masaa ñëw classe yooyu doo ko gis murit rek ngay gis ki njëkk a ànd ak sëriñ bi ki gën a baax ki gën a mokkal alquran waalam bi annama tafawut alwara fi ilmi wa diini yakunu fasbira leen sëñ bi daa wax sëñ bi daa wax ne is akramu libadi inda allahi aktaruhum taqwa ki gën ci yàlla mooy ki gën a ragal yàlla kese rek bokk na ci lim ràññi ko dëkk yi sëñ bi daa sant mooy desu fa sànq waxtu desu fa sànq waxtu sëñ bi dara aaye sànq waxtu wala nekk ci lu amul njariñ amal bitaalatu wa tadyiu al umr bi gayri ma yugni fadaauhu yadur loolu sëñ Tuubaa daa wax dañ daa dimbalante itam jàppalante murid yi benn lañ woon dinaay nekk lu xaw a xorom waaye lu wér la ñaari mag ñoo xam ni xam naa seeni tur kenn ci ñoom yabal moroom ji ngir mu wutali ko soxna ba mu demee moom mag ñi ñu ñu ñëw ni woon mu gis ne soxna seenee baax na ci moom te aajo woon na ko mu takkal ko boppam lijjanti ko boppam bi mu ñëwee mag mii ko yónni woon xamal ko ne ko man de xamoo ne da nga ko aajoo lim ko lim naroon a waajale xaw wa mu jox ko ko ngir ñu defee ko këram nga xam ne ñoom loolu ñu wax isaar doonoon benn di jàppalante kenn ku ne bëggal sa moroom li nga bëggal sa bopp waaw kon loolu doy na rek ci bërëb yi nga xam ne moom la sëñ bi daa sanc ak nim daa mel